mbokk maa ngi tudd Tete Ahmadou Ba di jiite kuréel bu ñu tuddee BGV TAB mu yore ay ndaw yoo xam te ni toll nañ ci presque mille jeunes yoo xam te ni ñu ngi leen di former ñuy liggéey di yóbbu am lu ñu yóbbu seen kër yi. solo solo ndaje tey bi pour wane rek ni euh, pour sagal sunu pour surtout euh, wan askan gi ndaw yi ñuy tàggat leen jox liggéey am na ci tey ñoo xam te ni toll soixante dix ñu war leen graduer donc yëkkati leen tàggat leen ci kanamu ñëpp war na ñii am nañ ay diplôme yu toll ci phase 3 ak phase 4 waaye tamit aussi bëggoon nañ si bés bi tamit fësal sargal ko xam te ni moom la ñu tuddee le professeur Massamba Gueye xëy na fàtte naa ko sax ci bi mais le docteur Massamba Gueye tamit bëggoon nañ ko fësal ni ñun suñu royuwaay la parce que ndaw yi dañoo war a jox ay références et que moom it dafa bokk ci références yi waaw bu doon am na wax tamit damay wax ak état bi rek parce que tamit mooy suñu kilifa mooy suñu lépp ñun dañuy def mooy jéem a ànd suñu contribution ci li liggéey ndaw ñi te xam na ne liggéey ndaw ñi nekk na problème ci àdduna bi yëpp dëkk boo def loolu problème la waaye ñun BCVTA bi ak ñi ñu àndal a ah, ñu ngi tàggat ay ndaw leen jox xëy chaque jour te lu mu gàtt gàtt tey jii la toolu góob na si mille ndaw yoo xam te ni formé nañ leen kenn ku nekk am na ci lu jàpp sant yàlla bu baax a baaxal si ñu ñaan mu gën yokk jeunes yi nag maa ngi leen di invité aussi ñu ñëw approché BGVTAB pour ñu mën leen jox emploi tey ndaw ñi nga gis ni ñu formé leen tey jël ba ñu ci jaay diplôme wala ñëw jàngu français wala nangam sax moo xam jàng nga wala jànguloo ñun boo ñëwee dinañ la tàggat ba nga mën a am say diplôme ba mën a nekk un chef d'entreprise plein yor sa entreprise doxal donc tey nag euh, ci lañ ñu doon jox suñu lan remise de diplôme mu nekkoon cérémonie boo xam ne ñi ngi ko doon amalee fii ci euh, théâtre national Daniel Sorano donc mu nekk fête bu neex aussi fête boo xam ne am nañ ci contentement parce que dañu intégré woon ci liggéey bi ñu ñëw ñu gëmloo ne y a de l' avancement y a de l' opportunité totale aussi dans le travail ñu nekk di liggéey boole ci gëm-gëm fula ak fayda ba yàlla dogal ñu atteindre suñu objectif ba tey ñu mën a recevoir suñu diplôme ci biir liggéey bi mu nekk liggéey boo xam ne euh, sérieux lañ ñuy jàngal jub lañ ñuy jàngal yar ak teggin mais am fulla am fayda ci sa bopp doon liggéeykat gëm sa bopp rawatina bi nga nekkee lan ndaw parce que ndaw bi bëgg a tekki ëllëg li muy jiital ci boppam mooy gëm-gëm fulla ak fayda ak lan sérieux tegu ci yoon bi donc suñu responsable ñu ñuy encadré euh, di ñu wax ban yoon la ñuy aw ba ëllëg ñu mën a réussir ba mën a jàppale suñuy famille donc am nañ contentement am aussi plaisir lan euh, fekkee fet bi nii ba yàlla jàppale ñu tey ñu mën a euh, recevoir suñu diplôme ñu ñaan yàlla aussi le succès le travail continu voilà am naa yëg-yëg euh, contentement bu baax a baax vraiment euh, di kontaan ci diplôme bi di kontaan aussi ci sama liggéey di ñaanal yàlla aussi ñi nga xam ne nii ay top leader lañ ay leader nekk ci yoon bi ñoom aussi yàlla jàppale leen euh, ba ñu mën a dem ba atteindre seen objectif ba ñu leen di leen jox seen i diplôme donc maa ngi wax les jeune aussi à ce que nañu intégrer wu dans la boite parce que dans le travail il y a de l'avancement il y a l'opportunité total aussi donc képp koo xamante ni yaa ngi nekk aussi ci biir liggéey bi euh, conseil bi ma lay jox mooy na nga am fulla na nga am fayda euh, xam ne aussi ci suñu liggéey euh, boo amee fulla ak fayda rek pour nga génn ci dafay daal di yomb parce que nekkul ay caaxaan liggéey la tekki la dañu nekk di daan suñu doolee ngir ëllëg ñu mën a tekki dimbale suñuy famille parce que képp ndaw kuy jóg di yeewu suba teel di guddee wàcc sa objectif mooy naka ngay def ba réussir ba mën a jàppale sa famille donc maa ngi lancé message jeunes yi que ñu jóg takku àndandoo liggéey